nga xam ne yéen a ànd loo xam ne amagul un an campagne électorale ngeen génn ci bul fàtte ne un président un président de la République d'un parti devenu chef de l'État ku am jàngat ci wàllu politique te xam luy réew boo nekkee chef de l'État président de la République di nga jox sa cër ci sa parti mais di jox jox réew mi réew mi dama ngay jiital doo ko parti dama dégg Mohamed Boun Abdallah Dionne mhm. ci seen euh, scène bi mu wax ni dafa teel non daf loolu dégg nga ko kon kon man ma dégg seen moom yaa nga foon maa ngi yaa nga foon. Macky Sall jox na ma privilège boobu. kon jeex na. sama njàng sorewul. waaw mais. falaw na ma ci gouvernement de l'APR. dama ci ma ci ma ma ci gërëm sama laam toor lool ndax confiance la. d'accord c'est là où on prend mais dafa jàpp ni moom dafa teel Idrissa Seck dugg ci seen seen seen. seen non non l'a pas dit. wax ni. loolu loolu loolu Boun Abdallah Dionne ak keneen ku dul Boun Abdallah Dionne personne amul devoir boobu. Boun Abdallah Dionne qui était ministre ñu dénkoon ko PSE devenu premier ministre déglul baax li ma lay wax. nekkoon son directeur de cabinet depuis primature xam nga mënuñu xëy. waaw laisse-moi terminer bind ko toute la presse wax ko dégloo benn yoon mu weddi moi aussi man maa ngi fa woon. naan presse dañ koo bind xam nga dañ leen wax. mais am na lu ñu la fa waxal ni wax nga ko fa. man man li ma fa wax man dama koo assumer. waaw man waaw lu ñu la lépp lu ñu la wax. lan nga fa wax. déedéet bu ma tu me poses cette question d' abord parlons ci actualité bi nga wax Boun Abdallah Dionne wax na ko. mais ci loolu la ñuy tontu nga ko ci moom Abdallah Dionne. ci loolu tontu nga ko ci moom xam na luy état xam na luy état. bañ na ko mag tontu ko ci loolu wala tontu ko ndax tontu ko wala tontu ko Abdallah Dionne. ci secrétariat ne pas dire. te loolu su ko Boun Abdallah Dionne du ko wax Boun Abdallah Dionne kooku ñeme na jàkkaarloo ak Macky Sall ak ni mu xamee réew ni mu xamee état nga yor premier ministre du dàq njàng du ëpp mérite. moom kàddu yi mu fa yëkkati yëpp kàddu cant ak ngërëm la ndax koo leen jàng de 2009 bi ñuy tàmbali di xeex yàlla dafa dogal ñu dissoudre ñu di génne ko assemblée nationale Boun Abdallah dafa dem ja dafa dem liggéey ji loolu pare na mission ak président président dafa dem ba faluwaat woowaat ko ci wetam ne ko kaay dënkale programme bi gën a mag ci sama programme PSE plan Sénégal émergent jëlee ko foofu directement yóbbu ko primature. mu mu def ci liggéey aussi. je suis mu def ci liggéey bu am solo bokk naa ci ñi ko xam. waaw liggéey man bokk naa ci ñi ko xam. mais liggéey premier ministre liggéey premier ministre. mën naa nekk lu fës mais day fekk président bi nangu il peut pas prendre aucune décision sans avoir l'autorisation du chef de l'État bul fàtte nag premier ministre bu mu bëggee mu deñ ndax def ci dañ ci boolee baat est-ce que existe na amatul donc nag premier ministre bu réussir yépp président moo jàpp ci loxoom moo ko jàppalee moo ko teete yàlla dogal ñu jëlee ko foofu décret bi ko jëlee premier ministre moo ko falaat ministre d'état secrétaire général de la présidence kooku yàlla dogal à am un bon ñu jëlee la ci boobu mission euh, euh, jëlee la foofu kooku munoo wax ne ne dafa teel ci Macky Sall jël sa Seck déedéet loolu de dégguma ko xanaa yaa ko dégg wala dafa am beneen scène bu bokkul bi ma siégé secrétaire exécutif. ba nga fay waxoo ci loolu. ci lan ci wax ju mel noonu tontu man bi ma leen waxee wax ju leer la. Mhm. ma ne yëkkati kàddu. wax ci élargissement gouvernement bi te ba yoo confiance ci sa ki nga xam ne ne moom mooy président de la république am xam am xam-xam politique am jaar-jaar politique am stratégie politique nee naa la. leen nga ni loolu nga da nga ni ku ci wax te waxuloo ci wax ci élargissement non non non ma a élargissement bi ku ci jël kàddu di ci bëgg esprit expliquer ay mbir yoo xam ne ne président war na doxalee lii wala am xalaat nii man dama dama dama tëj débat bi man leneen ça veut dire am respect ki nga wóolu teg ko sa kanam. confiance day mot warul nekk 98 pour cent warul nekk 58 pour cent ça doit être 100 pour cent. donc amul démocratie le chef de l'État donc amul démocratie. non démocratie am na mais confiance dafa am. c'est-à-dire boo taxawee ni bu fi. est-ce que démocratie. est-ce que amul amul wax sa xalaat amul liberté. Pape Ngagne démocratie jëlee na fii confiance. démocratie dafa ñëw pour jëlee fii confiance. politique je vais te dire une chose l'armée c'est des ordres politique c'est l'engagement je le dis toujours dans TFM et je le répète l'armée c'est des ordres ñooy wàcc rek. comme la paire nga exécuté ko. comme la paire mais politique c'est des engagements. non non non. <laughs> la paire. non la paire comme la paire c'est parti politique l'État moo gën a kawe ak yeneen parti yëpp un chef de l'État bul fàtte loolu il est président d'un parti mais loolu ça c'est la politique mais quand il parle de l'État il est chef de l'État ñaari mbir yëpp bu ko ko yàlla dénkee ndax daa war a jël APR jiital ko jël état suul ko ko wala état bi la war a jiital pour njëriñu askan bi boole ci APR. et c'est ce qu'il est en train de faire. dafa jël état bi en tant que chef de l'état jiital ko boole ci APR. boole ci nag yeneen parti aussi ñi nga xam ne ñoo ko fal ak ñeneen ñi ko falul pour stabilité réew mi. non stabilité bi laay bañ a dégg. Ah, parce que gisuma dara loo xam ne dafa stablul ci réew mi. Ah, amul gisuma bëgguma dégg stabilité. bu dee léegi. no stabilité lan da nga fi lan nga fi ban politique. ban crise nga fi dégg dama ne ban ci ban parti nga crise nga fi gis. ban crise nga fi dégg. ma bu dee da nga da nga da nga bokk ci benn parti politique demal jël sa carte politique ñu xam fan nga far. ban crise ban ban crise non wax ma ban parti nga far rek stabilité si tu es opposant dans tel parti ou dans tel parti. mais il faut qu'on soit honnête. bi wax ma. ban stabilité nga fiy coow nii ba naan moo tax président di jël yenn décision am nga président benn jour. wax na leen lan nga fi dégg wax na leen organisation bi amoon si da nga fi dégg ay de la justice. mu ne leen lenn laa leen di wax. combien de demande de marche ñoo fi amoon combien la ci état bi validé combien la ci état bi kii c'est un homme démocrate mais la confiance yi ñëwul pour bale fi confiance. d'accord léegi euh, honorable daf ci am ci départ yi ko xam ni da nga wax fépp ni sa xarit la muy Amadou Ba. lan nga dundee départ am. xam nga départ politique nee naa la c'est mission missions. bi Amadou Ba non personnellement Amadou. je te parle Amadou Ba sama xarit la et j'assume suma xarit la démb suma xarit tey suma xarit la suba. mais en politique j'ai qu'un seul patron je n'ai aucun souci avec Amadou Ba bi ma jógee këram mootul 4 euh, cinq jours chez lui laa la wax bëccëg kam bu may seeti Amadou Ba du ma dem guddi on était dans l'opposition ma nekkoon ci dispositif Macky ma nekk ci wetu Macky Sall amutoon chaque deux trois jours yu ma daaw doon fréquente Souleymane Ndéné Ndiaye au Petit Palais loolu ça c'est des relations président Macky Sall musul dugg ci relation privée engagement politique bokkul moom xam na ne su ma fanaanee àll ci ki gën a nekk opposition de radicale mon engagement s'appelle Macky Sall doom ji ma jur taaw bu jigéen ak taaw bu góor ak sama yeneen doom ku ci demante jongante politique ak Macky ñàkk nga sama carte doom yi ma jur laa wax de je ne parle pas de keneen Amadou Ba suma xarit la ni ma ko dundee mooy suma xarit la bi ko Macky Sall di jël Macky Sall di jëlaat jël réew mi di faluwaat nekk président de la république Amadou Ba àndutoon ak Macky Sall ci wàllu politique wax na ko fii ci émission campagne lu ko président ñëw ci mbaaxam. mais loolu li mu wax ci émission laisse-moi terminer ci lu bëri ma laisse-moi terminer jiitalu askan bi ne kii comme am na xam-xam ci biir direction générale des de domaine naa ko fa bàyyi. bi mu ko fa jëlee direct du choix kenn yóbbu ko directement ministre des finances loolu choix kan la. Mhm. décision chef de l' du man du Amadou. c'est pas seulement des problème de compétence c'est des problèmes de confiance de haut niveau yàlla dogal ñu gagné au premier tour mu falaat ko ministre des affaires étrangères comme yeneen tous les autres ministres. d'accord donc am naa des ñoo xam ne sont des camarades de parti ñooy membre fondateur de l'APR tey bu doon sama sax ñu ngi ci biir gouvernement bi mais loolu c'est des missions ça ne veut pas dire que tey Amadou ñëw na foofu secrétaire ak jël kaddu wax wax bu rafet remercier président loolu la ñu xam ci góor. Sénégal ci comme ça que ça merci président li ma defal ëpp ma fi mérite dàq ma fi jàng loolu kàddu la boo xam ne dama ko ci dama ko apprécier mais dundun bii mooy man ci wàllu politique benn dund la am amul ñaari dund boo ma posé boobu question ma tontu di yox yox rek ça veut dire que dëgguwuma olof nee na ku wax feeñ mm-hmm. Amadou Ba suma xarit la parce que laata Macky Sall di falu dañu jaar ci ay teranga yu bëri ñu nekk ay xarit Macky sal falu ñu continuer di nekk xarit Macky Sall joxoon ko ak abaloon ko ay mission ñu continuer di nekk ay xarit bu makki sal bu ko jëlee fii jël keneen teg ko foofu nekk ay xarit ku mu jël tey teg ko ci ab lay daaw Daouda Diallo suma xarit la c'est un camarade de parti d'accord donc loolu pour ma wax la ne aw ma problème ci wàllu fal politique boo xam ne choix Macky Sall la loolu c'est un domaine réservé au chef de l'État okay. mais mes relations ak privé je l'assume mais dund dund bi aw ma ñaari dund ci wàllu politique d'accord loolu leer na waaw Macky Sall moo yor loolu loolu leng loolu leer na mooy xool